musicale sénégalaise. L'album n'est pas encore sorti sur le marché, mais le single, vous allez découvrir ça sur le plateau de Dakar ne dort pas. Aïda Samb maa ngi lay nuyu. Boubacar maa ngi lay. Mbaa ci jàmm. alors Aïda li ma la bëggoon na njëkk a laaj mooy depuis combien de temps maanaam kañ nga tàmbalee way. Ah, Boubacar maa ngi lay remercier ci euh, invitation bi euh, man pour wax la que ni à l'âge de huit neuf ans laa commencé way. huit neuf ans déjà. fan nga commencé way fan nga dëkk. Euh, man maa ngi dëkk Mbacke. Mbacke euh, je suis d'origine Jolof Jolof. Jolof Jolof mais sama papa moo dëkk euh, Mbacke donc foofu école bi ma doon jàngee bi may gën nekk xale bi may def C2. ci laa commencé di def di diriger chœur d'ouverture yi ci troupe théâtrale yi nga xamante ni woon moo nekkoon ci benn école bi. ci école bi alors école bi am troupe théâtrale yow déjà nga nekk xale huit 9 ans ngay def chœur d'ouverture yi lan moo tax ñu taamu woon la yow. parce que teel a rek. teel a sopp rek rek la woon. ah nga ma wax un bi nga commencé ba nekk ci chœur d'ouverture yi di way ñu remarqué la ndax waa Diourbel xamoon nañ la. bien sûr parce que instant boobu noonu ci la. ci lañ doon lancer programme scolarisation des jeunes filles donc en tant que fille nekk di jàng ci école euh, ci école donc ñu ñu xamee ma que ni parfois dama yëngatu ci affaire way donc ñu jël ma générique bi nga xamante ni moom lañ doon utiliser euh, au niveau régional ci région de Diourbel man maa doon def euh, manifestation yi doon organisé man maa doon def générique bi su l' scolarisation des jeunes filles et bu ñu doon ñëw fii dakaar di def yenn yenn yenn yenn manifestation yi dañ may àndaale pour ma représenter région de Diourbel. yow boobu ndawoon nga di. teel a sob rek teel a sob rek alors teel bëgg way teel a bëgg musique Aïda Samba une voix si pétillante de la musique sénégalaise alors Aïda euh, balaa may dérouler ce curriculum vitae ci wàllu way xam naa ni way nga ak artistes yu bari liggéey nga ak artistu yu bari alors euh, balaa may ñëw ci loolu dama bëggoon ñu découvrir li nga xam ni moom nga indi waa Sénégal euh, xam nañ la Euh, ci Youssou Ndour xam nañ la euh, ci Pape Diouf xam nañ la ci artistes yu bëree bëri yoo xam ni yaa ngi leen di accompagner. <laughs> alors mais balaa ñuy ñëw ci loolu bëgg naa ñu découvrir li nga xam ni moom nga indaale muy ñaari morceaux yoo xam ne dañ ko war a découvrir tey ji laata sa album di génn alors euh, balaa ñu ci dugg tuuti rek mën nga ma wax pourquoi nga tàmbalee tradi moderne ak Saraba. en fait parce que donc sama maam di El Hadj Samb Jabare donc ma koy rendre hommage parce que grâce moo tax tey ma nekk woykat donc loolu moo tax bi ñuy débuté euh, album bi donc ma préféré jël benn morceau boo xamante ne ni moom moo ko woyoon morceau bi nga tuddoon Saara Ba mu woyoon ko capitaine Jibi Ndiaye bu dëkk Jolof ma reprendre morceau boobu donc ak euh, Ibou tamit am ci benn am ci gis-gis boo xamante ni je pense que nit yëpp dinañ am vision bi ci Ibou am ba ba def loolu donc je pense que nit itam dinañ am mais même vision bi que Ibou. Alors, mesdames, messieurs, regardez, vous allez certainement aimer et apprécier ce joli titre Saraba. Écoutez ce que ça va donner. En tout cas, moi, j'ai adoré. Écoutez, ceci vous appartient. mu reprendraat li nga xam ne moom moo di morceau boobu nga xam ni moom wayoon na ko dans le temps daal di ciy ñëwaat daal di ci indi yeneen harmonie daal ci indi yeneen genre indi ci nag li nga xam ne moom moo di style bu tradi moderne Aïda Samb en exclusivité sur le plateau de Dakar ne dort pas mais Aïda sa jaar-jaar ci way euh, boole na la ak artistes yu dul jeex ndax mën nga ma wax yan artiste nga jot a liggéeyal waaw parce que mën naa ni euh, artistes yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal yu mag yëpp liggéey naa ak donc ma ci sant yàlla te mu wone que ni toogaay bi nga xamante ni toog naa ko def na sept huit ans regretté wu ma ko parce que sama m'a permis ma am bu doon tuuti ci expérience ci musique donc sama première dugg studio maa ngi ko def ak Kiné Lam c'était en 2003 euh, bi muy génnee album Cey Guerre Cey Guerre donc après quelque temps lañ ci tegaat Youssou Ndour di génnee Al Sama Day donc ñu woo ma ma participer ci ak Pape Diouf Mapenda Seck euh, Tafa récemment en 2010. Tafa Jarabi. Jarabi Abou Thioubalo album bi mu génnee en donc pas mal d'artistes yoo xamante ni mënuma ko mënuma su ma koy lim damay fàtte. Euh, Jibi Jibril Diop tamit. yow yaa def kër yi. waaw Jibril Diop mooy album bi mooy morceau bi mu woy Limaamu Laay. Limaamu Laay. Uh-huh. Euh, Assane Ndiaye tam da nga bokk. Assane Ndiaye ak Yoro Ndiaye. mais yow kon loolu yëpp dafa nekk maanaam background boo xam ni dafa nekk expérience boo xam ni dina la dimbali ci li nga xam ne moom moo. waaw parce que du euh, kii bi ma toog yëpp pendant sept ans huit ans. sans génne al aw ma album aw ma tamit single donc loolu moo ma permettre tey ma am bu dee tuuti la rek sax ci expérience Euh, am naa ko ci ci ci ci diggante boobu parce que xaw ma woon naka la ñuy utiliser na naka la ñuy dundee biir studio donc première fois bi ma bi ma dundee studio donc dafa dafa doonoon loo xamante ni loo xamante ni lu étrange la ci man parce que c'était la première fois ma dugg studio ñu takkal ma ay casque euh, je participé nga aussi en live lu bëree bëri mhm. euh, gis naa album Youssou Ndour bii nga xam ne moom moo mujjee génn gis naa la cosaan yaa ngi woon ci kaw scène bi ci wetu Biram Dieng mhm. gis en live nga ko doon accompagner gis naa la tamit euh, ki nga xam ni moom moo di Yoro benn soirée bu mu doon def euh, à la télévision nationale tamit nga accompagner ko. waaw euh, aussi en live toujours beaucoup ah. waaw parce que loolu lépp ci ci ci temps boobu ma toog yëpp di patienter loolu yëpp yoon la parcours la woo xamante nii dama ci jaar kon tey ba si ci war def album ba tey ci exclusivité exclusivité single bi kenn. en tout cas mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi waajal leen yéen melomaan yi waajal leen Aïda Samb yegg si na Aïda Samb bokk ci xale yu jigéen yi nga xam ni ñoom ci ñoom la ñu am yaakaar ci relève wu musique Sénégal ci taxawaay bu bees ci renouveau wu musique sénégalaise Aïda Samb une voix pétillante de la musique sénégalaise daañu dellu siwaat ci moom ci kanam tuuti incha allah